da ngay jël kilo ko may saaga ndeyam rof ko ci wax yow delloowaat ko ci milliardaire bu ni may cinq cinq millions muy jëful tey bii façon milliardaire kenn mayu ko tuunu ndeyam nii la mel te waxoon naa leen ko Adama du waxantu tey nag dinaa live spécial toj cottu ndeyu awuskiti spécial marine lafal ndeyam ku ci dugg nag di at ñàkk jom di ko faral ma lekk sa lafal ndey foog naa loolu ñëmetu leen ko ba pare invité gel bi nga xam ne moo am problème bi tey bu kanta de live bi 23h Sénégal 1h du matin Europe incha allah merci beaucoup